suma mag suma xarit suma professeur Mamadou Talla ci oyofam ci disponibilité am parce que tey nii waru fi woon nekk mais bi mu déggee ni ci mbirum école la te dañ ko bëgg a jàppale dafa ne lépp lu ma jàppoon dama koy bàyyi ñu ànd ak yow ci bés ma koy gërëm te li may wax suma rakk Yankhoba Diattara mën na ko témoigner ci oyof Mamadou Talla ci disponibilité Mamadou Talla ci bëgg liggéeyu Mamadou Talla moo tax bi ma dugalee ma ne damay dugal suma loxo ci lii ma xalaat ko ci te moom itam mu jàppale ma ci te bi may fal président Palma ministre de l'urbanisme de l'hygiène publique et du logement dafa daf ma newoon bésub setal dama bëgg nga réformer ko bugguma ñu def ko politique politicienne dama bëgg nga waxtaan ak Mamadou Talla ak ministre de la jeunesse ngeen impliqué élèves yi ngeen impliqué ASC yi pour ñu mën a inculquer la culture de la propreté dans nos quartiers et dans nos communes mën jël leen temps bu mu war ngeen réfléchir ci nga xam ne xale yi école bi par exemple ñooy jël propre en charge la propreté du quartier mais loolu dañ koy jiitale ajuma ji bu ñu ko nee samedi. bu samedi bu nekk ci premier mois ci mois bi ak ajjuma ji ñu jël fukki minutes ak juróom ba nga xam ne dañuy waxtaan ak xale yi jàngal xale yi lan mooy culture la pauvreté ñu màgg ak moom ñu jël ma Mamadou Talla mu dugg ci benn classe def ci cours Mass Thiam def beneen cours feneen Yankoba Diatta def beneen cours feneen mu ne 15 minutes rek yu ñuy accordé par mois à la culture de la propreté ASC yi tamit ñu bañ a yee rek yem rek ci football bi mais ñuy dugal leen ci biir ba nga xam ni ASC élèves yi mën a yore li nga xam ne mooy bësub setal ñu wàññi politique bi ci biir ñu wàññi folklore bi ci biir loolu la ma président dégaloon te yaakaar naa ni maak Mamadou Talla ñu ngi ca te foog naa ni mois de décembre man ak moom danañ ko lancé ndoo buñ ko lancé ndoo ñi dañ xam ni am na beneen pexe bu nga xam ne président dugal na ko si suñ si suñ bopp yi te dana gën a rafet te dana gën a yemb mbir mi gouvernement solidarité la tâche éducation nationale Mauritanie lañ wax nañ ci veillé mais ministre bu nekk am na ci xel am na ci xalaat comme li ma yor ministre bu nekk am na ci xel am na ci xalaat ndaxte nguur gi kenn rek lañu ñu mooy définir politique nationale mooy président de la république président de la république bu ñu ñëwee pax ay bànqaas mu jox ko ku nekk bu ñu jàppalantee ku ci nekk sa bànqaas bu nga yor garab gi taxaw moo tax ñu jàppalante ñun ñii ñu ne nañ bokk liggéey bi ci école yi école yi waaye yaa ngi waaj ubbi. UCG dugal ci loxoom ñun ñëpp ñu jàppandoo ba élèves yi le 14 octobre ñu mën a jàng ci ay conditions yu rafet ah, ma bëgg nag itam félicité bu baax UCG man de ministre de l'urbanisme man de ministre de l'urbanisme de l'hygiène gërëm naa sant naa UCG ci taxawaayam ak ci liggéey ma gërëm parce que ñi ñuy wax protocole bu ministre bi teewee coordonnateur bi wax du wax ou bien directeur bi du wax man maa ko ne waxal maa ko ne waxal parce que nit warul suul jëf nit warul suul jëf ministre bi rek ngaddu rek ngaddu affaire yi rek yaa yaa yor affaire yi am na ku liggéey ci suuf di liggéey bu dégg bëccëg ñu war koo wane nit ñi mën ko jël exemple oh. fois chaque fois su ma président waxee xalaat ne ma dama bëgg ñu defee ko nii su ma ko waxee Mass Thiam ak UCG am naa ko ni mu gën a rafetee ni mu rawee sax suma njort u njort président la république loolu nag bu ñëwee ñu gisaat liggéey bii ci ñaari semaine ci ñaari semaine lañ leen jox instruction bi ñu def ko ma war leen gërëm war leen sant waaye Mass itam lu mu am xel am engagement bëgg a bëgg a bëgg a liggéey su àndutoon ak ñii kenn du ci liggéey moo tax mu gërëm ko gërëm waa UCG yëpp jàpp ni itam président dafa jël effort bu rëy def ko non euh, kii fàttali na ko Talla la fàttali na ko Yankhoba Diattara fàttali na ko mais au delà de li mu def ci UCG dafa jël ren ren ci programme xëyum ndaw yi mu dugal ci dix mille emplois dix mille emplois mais dix mille emplois yooyu warul nekk rek ay nit yu xëy di defar mbedd yi rek pare ci cadre yu mel ni école yi cadre yu mel ni espace public yi cadre yu mel ni yeneen ak yeneen ak mel ci stade yi stade Lat Dior mii buñ ci waree football à chaque fois UCG mooy def defar ko ba mu rafet ba nga xam ne ku dugg ci stade bi kontaan loolu nag loolu nag dafa am implication impact ci région de Thiès ci 10 000 yi xam nga 14 régions la bu ñu doon def division bi ku nekk kenn ku am 1000 mais président dafa joxe digal ci Thiès nañ fi dugal au moins 1300. mille trois ci liggéey bu nga xam ni du du liggéeyu temporaire liggéey bu nga xam ni bu ngeen ko jàppee tey ko ni ngeen ko war a téye da ngeen ci dem ba ci retraite loolu lu koy indi lu ko indi nag mooy ngeen jàpp seen liggéey kuy daw liggéey ku kuy caaxaani liggéeyam dañ koy dàq mu mee neex mu naqari dañ koy dàq parce que liggéey amul benn liggéey ci àddina bu néew liggéey bu barke la fi nekk man mii damay ko wax xale yi toujours man ci ndóol laa juddoo màggee ci mais ñefe pour génn situation yu ma nekk. dimanche bu nekk dama doon topp topp suma baay dem ci ay pépinière di arrosé pour am ci dara pour mën a dund. Ah, kon ma jógee ca nekk instituteur adjoint kon ku ma bëgg ñefe rek sa métier bii boo ko xeebul leneen ak leneen mën na ci judd bu leen xeeb seen bopp bu leen xeeb seen métier. am leen la passion du travail et vous servirez davantage votre pays loolu gëm naa ni ci esprit UCG gëm naa ni xale yi danañ joxe yeneen résultats yu gën a rafet pour réew mi ak pour seen askan. ma gërëm itam bu baax xam nga fii ci Thiès dafa am ñetti élus yi fi yu fi toog ku ci nekk ma am ci sa ay relation particulière Talla la moo ma jàngal xeex. parce que université lañ ko fekk muy jàngal ay pexe xeex ñuy ñuy xeex rek kon su ma ko fekkee fii ma gërëm ko ci loolu ma ko doon fekk pavillon H mu ñuy jox ay pexe naka la ñuy def ba yëngal dëkk bi bañkat la Yankhoba Diattara suma rakk ñun ñoo bokk ay fem yàgg nañu galgalante fii ci Thiès yuy galgalante ba léegi ñu bokk benn hmm, benn benn kilifa benn kilifa waaye yàgg nañu galgalante fii ku ci nekk dugal say pexe waaye ñoo bokk même école de formation waaye ku ko gis xam ni man ak moom euh, am na fu ñu fu ñu fu ñu nampee ñoo ko bokk fu ñu nampee ñoo ko bokk te mu nekk aussi suma rakk ñu nga xam ni jox na ma cër ma delloo ko cër keneen ki mooy Aliou Sow Aliou Sow nag ñoo bokk passion de cœur man gars yi bëggoon nañ ma génne ci football bi ma ma lànk ma lànk génne ci football bi parce que loolu suma vie privée la su ma vie privée su ma génnee ministère am na ñu nga xam ne bu ñu ministère dañuy dem ci danse gi man du ma dem danse ci stade laay am na ñu nga xam ne xëy na bu ñu jógee ci ministère bi ci ci jàkka ji la ñuy dem man nag nekk guma sëriñ football mooy suma passion maak Aliou ñoo bokk passion boobu ma ko ci nuyu di ko ci gërëm te kàddu yi mu fi yëkkati ma jàpp ni rek suñu booloo quelles que soient nos opinions quelles que soient nos diversités quelles que soient les visions suñu booloo nekk benn doxal ndigal bi nga xam ne président Macky Sall ak yoon bu ñu teg yaakaar naa ni duñ ci am rëccu en tout foofu laay terminer gërëm nag bu baax gouverneur ak préfet yi bi nekk ak l'ensemble des autorités académiques et scolaires gouverneur ak préfet ñoom su doon politique day ci seen wet laay nekk parce que loolu moo tax may wax xale yi persévérance am na man instructeur adjoint laa commencé dem nekk administrateur civil loolu lu koy def mooy gëm li def rek gëm yàlla gëm sa liggéey topp say ndigalu waajur koppar bi ngeen di am ak néew as néew bokk leen ko ay say waajur moo gën a baax ci sëriñ bi ngeen mën ta loolu moo tax ma félicité aussi gouverneur ak préfet yi yi fi teew li leen remercier bu baax a baax mais ma foofu laay mujjantale encore une fois ministre de l' éducation nationale Mamadou Talla maa ngi lay gërëm di la sant bu baax a baax man am naa fierté wax fépp man sama mag la am naa fierté jàpp la parce que jàpp jooju chaque jour ma gis lu ci julu lu bees uh-huh. maa ngi lay gërëm di la sant di la wax ni foo ma oowee ak nu mënta demee dañ la wuy si bu soobee yàlla ndaxte loolu la ñu président digal ñu bopp liggéey bi ñu doxalandoo ko ba askan bi gis ci boppam maa ngi leen di sant wa salaam. Koba Diatara di nuy euh, monsieur le ministre de l'urbanisme boo xam ne moom moo tax ñu mën a ñëw fii tey mun a wax ne mun nañu ubbi tey di jàng tey si école bi di nuyu monsieur le gouverneur les préfets di nuyu également suñu partenaire donc BHS ñoo xam ne ñoom aussi ñu ngi di accompagner. le ministère de l'hygiène di wax ne rek rencontre bu am solo la yàgg nañu wax ne concept ubbi tey jàng tey ñun commencé nañ ko ñu ngi ci vingt et unième année boo xam ne moom mooy chaque fois suñu naree tijji école yi ñu jël semaine boo xam ne ñu ngi di jéem di nettoyer waaye apport bi ñu gis ren avec l'UCG avec le ministère de l'urbanisme mon jeune frère Abdoulaye Sow lii mosuñu ko gis wax dëgg yàlla ñu ngi koy féliciter di ko remercier di wax na ko que impulsion président de la république moo wax na ñetti ministères yi mooy ministère de la jeunesse ministère de l'hygiène ministère de l'éducation fexe leen toog leen ngeen ànd ñi indi seen jeunes yi UCG ñun ñi indi suñu enseignants yi ak suñu directeurs yi yéen au niveau également de la jeunesse ngeen indi le ministère la jeunesse boo xam ne ñoom depuis des années chaque fois ñoom aussi nous accompagne comme sa ñetti ministères yi ngeen dem si gox goxaan yi ngeen xool école yi am ndox yi am air ba ngeen nettoyé ko donc di wax ne daal en tout cas li ma gis fii ci Thiès fii rek si Thiès mun nañu wax ne quatorze écoles la ñu préparé en tout cas trois yi ñu gis mun naa wax ne que pare nañu pour que le quatorze incha allah ñu mën a démarrer et au niveau national junni école la ñu nar a jël donc loolu ñëpp donc ñun kese mënuñu ko wan def mais di wax ne rek école école ñëpp la éducation éducation ñëpp la ñoom nos enfants ñoom ñooy ëllëg donc c' est eux la jeunesse mooy au début et la fin de tout en tout cas si ministère éducation national pare nañu au niveau de lui au niveau de l' inspection d' académie au niveau de l'IEF en ce moment sax ñu séminaire boo xam ne bu yaatu ñu ngi fale si Mbour di waxtaan yan condition la ñu war a pour que ñu am année scolaire bu baax mun naa wax ne que depuis deux mille dix neuf ñu ngi sant yàlla résultat yi ñu ngi baax baax nañu fii si Thiès baax nañu feneen wax dëgg yàlla parce que le dañ ko apaisé et comme nag climat bi apaisé dañ ko ñun li ñu gëm ne mooy que éducation nationale war nañu ànd ñoom ñëpp ñu liggéey loolu moo tax pendant trois jours ñu ngi fale si Mbour mooy syndicat d' enseignants yi élèves yi. parents d'élèves yi partenaires techniques et financiers tey nag am nañu apport boo xam ne boo am solo boo xam ne ñun kese mënuñu ko woon def mooy UCG li ñu def fii tey donc maa ngi leen di ñaan aussi li ñu def fii si région de Thiès comme mille établissements la ñu nar a def bu ñu fàtte Casamance bu ñu fàtte le nord bu ñu fàtte le Baol le Kajoor partout nañu dem si biir Sénégal pour que le 14 incha allah nit ñi mën a commencer jàng di ñaan encore les maires. suñu demee ba defar li ñoom aussi comme compétence transférée la même su dee amuñu ay moyens yoo xam ne ñu doy nañu continuer def maintenance di accompagner école yi mais di wax na également ñun en tout cas enseignants yi les variantes enseignantes que j'ai vu si pare nañu en général suñu waxee le onze mooy ouverture quatre-vingt-dix pour cent des enseignants ñoom dinañ ñëw le même jour di ñaan nag parents d'élèves yi maire yi ñoom ñëpp nañu indi xale yi aussi le premier jour su dee ñun suñu école pare na nettoyé nañ ko enseignants yi ñëw nañu emploi temps yi pare na def nañu lu ñu mënoon def donc comme ni ñu koy defee si école privée yi vaut mieux aussi appel bi may lancé fii si Thiès mooy que parents d'élèves yi yéen aussi indi leen seen doom yi le 14 pour que ñu mun a commencé jàngale fii si école bi et partout si Thiès loolu lu am solo la. di wax na rek en tout cas maa ngi remercier population de Thiès di wax ne aussi am nañu occasion. comme chaque année dañu doon def nettoyer dañu doon nettoyer école yi fii encore ci Thiès la ñu lancé suñu semaine nationale de ma donc moom dinañ ko def partout les CRD def nañ ko CDD yi def nañ ko maire yi pare nañu foo munti dem ci Sénégal 2000 nii la mel di wax na rek ñu ngi ñaan yàlla yàlla nañu commencé année scolaire bi ci jàmm ñu àggale ko ci jàmm.